asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Touba euh, ma ngi tudd elage Amadou Moustapha Diop je suis le président des commissionnaires agréés en douane du Sénégal dañ ma indi fi ndax tuxum cigarette ak nan sangara bu bari j'ai 65 ans djourum ben fukki at ak djourum mun naa wax ne djourum fukki at ak ak ñaar yëpp ci lolu la nek

Yalla motax ak Seigne Touba motax may wax changez radicalement té sumay man demb, avant may ñew fi nga gis dama bëgg def un deuxième témoignage ci li gis dugg la façon dont ñu téy nit ñi ñu téy xalé yi di di di mettre dans le droit chemin c'est extrêmement important et le plaidoyer que je fais maintenant, le plaidoyer que je fais, maintenant, autorité administrative du Soumokopi, autorité politique du Soumokopi. Parce que centre tribu, nous réunissons wara dimbalé Nous réunissons wara dimbalé Maire waron na fi ñew délégation préfet waron na fi ñew ak délégation taxaw déglu xool di leen yónnee di parce que yaa ngi dégg ay facteur de développement lañ yéen a ngi taataan yéen a ngi tagal yéen a ngi defar lu baax ci réew mi bu êtes extrêmement important jërëjëf